vous êtes à Kolda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants, les cours privés foirés sur la route du camp des gardes, après la pharmacie Enzala Sikilo, vous informe que les inscriptions et les réinscriptions ont démarré et se poursuivre de la sixième à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés foirés présents dans le paysage scolaire coldois depuis 2013 garantissent à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdoulaye Dieng, directeur des cours privés Foyer au 77 764 68 04 77 034 32 51 ou encore le surveillant général M. Babambalo, ex-surveillant Sem Hillel au 77 559 30 42. Les cours privés Foyer, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement apprentissage, le tout dans un cadre d'études. cours privé Foyer rek à la bala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وثريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يعذرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا الحمد لله الذي من علينا بأن بعث فينا خير خلقه وخديم رسوله محمد بن عبد الله sallallahu taala alayhi wa sallam haadiyan wa basiran wa nadiran bi sarifati alkaamilati alxaalidi wa anxama alayna bi anna hadaana lil imaani bima jaa bihi wa ja'alana min ummatin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar gi di ñaanal Sëriñ Muntaqa Basiru sunu borom yàggal ko kartanal ko may ko tawfiix waaye di ko ñaanal Serigne Mbaye Sy Mansour waaye di ko ñaanal mboolem surafa yi nga xamante ni ñoo nekk ci xilaafa yi adduna yi sunu borom defal leen kartan defal leen tawfiix ba li ñuy saytu di lislaam yàlla na ko sunu borom woyofal ci seen kaw. di nuyu mboolem ki nga xamante ni yaa ngi ñuy déglu wala ki ñuy seetaan di ziare bu baax njiital télé bi nga xamante ni mooy La Dépêche TV di Serigne Mouhamadou Diop ànd Serigne Samba Seck ak Serigne Mbaye Niang ñoom ñi nga xamante ne ñoo yor mbirum filmer yor caméra yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax mu mel ni it tey nag dañuy àndaat ak yéen ci seen jataay bi ñuy tuddee jataay ma Mafatihul Bichri di leen ci xasiday sëriñ Touba yi nga xamante ni moom la doon taggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jubluwaayam bépp di yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye ni ko boroom xam-xame di wax rek lenn lu dagg rek moroom ma lay wuti te weer wii ñu nekk kenn ku nekk xam nga ni mooy weeru sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam te xam ngeen ni cheikhul xadim ku bëggoon yonente bi la ndax sax moo tax ñu naa kaana cheikhul xadim yuxibu zahru ramada ram zabihul awal mahabatun azim wa yaani bihi li annahu sahrun mawludun mahbubihi sallallahu taala alayhi wa sallam xam ngeen ni sëriñ tubaa ku bëggoon weer wii la muy weeru rabihul awal di weeru gamu di weer bi nga xamanteni ci la sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam feña feeña jamono ñu toll ci di def burdu bi ci comme ni nga xamanteni non lañ koy daan defé di wajal bis bi nga xamanteni moy bis bi gëna mag bis bi gëna tedd muy bis bi nga xamanteni ci la sayyiduna muhammad feña jamono muy guddik fukk ñaar di guddi gàmm tombeek altine ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ci sunu boroom yóbbu Serigne Touba nag dafa waxoon ci xasidaam googu ñuy tuddee euh, Jazbul Xuluub di wax ni képp koo xamante ni màggal nga guddi gi Seyduna Muhammad feeñee jamono moo xam nga fere ci dara bigal ci sa njaboot moo xam nga ñàkk ci benn dërëm Serigne Touba nee na dinga wommatu yow ma ñàkk loolee ba tàbbi àjjana waaye nag ki nan lam waxoon ni taxsimuhu bi sunnatin yaquduna lil jannati képp koo xamante ni màggal nga guddik sayduna muhammad ci noo koy màggale ci lépp nga teg ko ci sunna booba day di nga wommatu ba tàbbi àjjana moom Sëriñ Tuubaa waxal na boppam ni dundal na guddik Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ci at yu baree bari ahyaytu mawlidi nabiyin min asasin wa xaadani fawqal mana fii balsasin Sëriñ Tuubaa nee na dundal naa guddik yonente bi ci euh, Balsasine 1302 nee na ci laa njëkk a wommatoo di màggal guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom ba mu ko dalee màggal gaa yi màggale guñ ko nee na ci la ma yàlla yi xëccali di ma xëccali may di ma indil tedd nga ba ci at moo xamante ni man xaadali ci Balsasine mu soog ma koo sëmbërtal di xiiwal kon guddi gaangoog di guddi goo xamante ni lépp lu ñu am borom guddi googu moo tax muy Seydina Muhammad yàlla ci boppam moo njëkk a màggal guddi gi yonente bi feeña jamono ndax moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman julli naa ci yonente bi ban yonente la yàlla julli sayduna muhammad képp kon nag yéen samay malaayika yi julli nañ ci ñoom kon nag yéen xeetu sayduna muhammad julli leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yaakaar naa ni gàmmu yàllaa ko njëkk a def nga xamante ne moo topp di baabi yonente bi te gis ngeen ni mu wedde yonente bi waye kero bi yonente bi feñe jamono la kontian ba gorel jamum bobu ñuy tudde shoyba muy Abu Lahab te kenn ku nek xam nga ni Abu Lahab ku ko gëna bañ yonente bi amul ci aduna ba tax sunu borom tudde ko saaru lëm muy tabat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran sat lahab wa amraatuhu hamalatul hatab fi jidha hablun min masadin waye teewul kero biñ dikeniko amina am na gan dafa kontaan ba goreel jaam bi nga xamante ni moom moo ko ko waxoon ni ko may naa la nga goreel sa bopp ngir li Amina am doom joo xamante ni mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te booba demagul ci daawa bi booba demagul fenn kon yaakaar naa ne yonente bi ay ngëneelam kenn xamul nu mu toll Serigne moom dafa bëggoon yonente bi bëgg weer wii ñu nekk muy weeru gàmm xam ngeen ni ma ngay wax sax ci jës bu naan nuurun azimun xat yaraa bihil xusuuru qaysaraa man kaana fii ummul xuraa makkata xayrul xurami mi ngi wax ni keroog bi yonente bi feeñee jamono daal maanaam leer yi dañoo gëndaloo mi ngi mel ni waa Pout di seen waa Thiès waa Thiès di seen waa bambay waa bambay di seen waa Dakar ngir lan leeru gu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam te xam ngeen ni Serigne Touba nee min nuurihi kulla nuurin saati al bi sana nuuru nujumun wa nuuru sams wal xamar keroog bi yonente bi feeñee cheikhul xadim ne na yàlla daal dolli leeru biddiw yi dolli leeru wee leeru weer yi dolli leeru jant bi dolli leeru bëccëg gi ngir mbég moo xamante ne am nañ ko keroog bi nga xamante ni Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feeñ na jamono kon guddi gaangoog muy guddi goo xamante ni boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bari wax nañ sax képp koo xamante ne dem nga ci jataay bu ñuy taggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di fa waxtaan wala ñu fay jàng xasida wala ngu fay wàcce alxuraan wala ñu fay wax baati zikar yi ba fajar nga jël ca ndox moomee ñu taajoon nga def ci ñaan ñu naan ci wax nañ ñu ndox moomee ku ko naan saw yaram araamal na sawara kon guddi la goo xamante ni jullit yëpp war nañ koo mën a màggal ndax kenn ku nekk la nga am yaa ngi ko amee ci sayduna muhammad muy yonente boo xamante ni it bi ko yàlla wàccee ci jamono mboolem li yonente yi yoroon yëpp sunu borom da koo dëxañ jox ko mu sayduna ndax yonente yi mboolem yonente bi ñëwoon am nga diine waaye bi diine lislaam ñëwee la sunu borom jël mbooleem li nekkoon ci diine yi yonente yooye dëxañ ko nee na képp koo xamante ne weddi nga yonente bi génn nga ci sama diine moo tax sëriñ tubaa ni képp koo xamante ne yaa ngi jaamu yàlla te nungu woo koo awee ci diine yi siiduna mohammad jaamu ga ngay jaamu yàlla pertement la sa xol dafa lëndëm te boo faatoo bu la yàlla jéggalul sa war a nga jëm kon yonente bi mi ngi noonu Sëriñ Tuubaa it daana wax naan faaqa rabixul su rabixul awali suura bi mawlidi lladi bada masxuura sahru rasulillahi ba'yahu suhuur wa ramadana zahrul atiqi wa tuxuur Sëriñ Tuubaa daana wax naan yëkkati na yëkkatiku na lan moo yëkkatiku rabixul awal weer wi yonente bi feeñ a jamono yëkkatiku na lan moo tax mu yëkkatiku ki ci feeñ daa musta feeñ ci wenn weer kon moo ci feeñ Seyduna Muhammad nga xam ni boo nee yonente bi rek da ngay xool fi ko Serigne Touba tegoon cofeel gi Serigne Touba amoon ci yonente bi nga xam ne moom dem na ba njabootam gépp Serigne Touba njabootam gépp Seydouna Mouhamed rek la leen tuddee amul kenn ku mu ciy dëpp di dem fenn la ci tuddee muy euh, soxna Faati Isa way si maam Thierno Ibra Faati ak soxna Mariama Boussa yaayam tudde na leen ko nekk kenn waaye li ci des lépp mi ngi ko tuddee njabootu Seydouna Mouhamed mi ngi ko tuddee Seydouna Mouhamed ndax day dem ba ci yàgg sax di tuddee maymunatu suxra maymunatu kubra aminatu suxra aminatu kubra gis nga biñ ko laajee saalix ak ibrahim ak ñooñu lu tax nga tudd leen ko dañ leen ñooñu dañoo bokk ak yonente bi deret te yonente bi ku bokk ak moom ah man dinaa la tuddee moo tax mu tuddee Serigne Saalix Mbàkke tuddee Serigne Chouaïbou tuddee Serigne Ibrahima Mbàkke kon gis nga Serigne Touba tolluwaayam ci bëgg gi mu bëggoon Seyduna Muhammad xam ngeen ni bëgg gi mu bëggoon yonente bi tax na ci njaaree mu toog am benn waay bu dikk di yore ay rasul di ko jaay di wax ni rasul yaa ngi rasul yaa ngi te boo nee Muhammadu rasulullahi Serigne Touba woo ko mu ñëw mu jënd mbooleem rasul yi ngir baatu rasul bi mu ci tudd diggam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooka bëggoon na yonente bi ba fonkoon ko guddim gi nga xam ni bu weer wi daan dem dina am lu mu koy jox di ko ko di ko ko wax ni ko boo demee ca sunu borom bi nga xamante ni ci nga jëm mu bind ñëpp jël yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taf ko ci boppam dee ko wax ni am na jaamam bu bëgg weer wi waaye jaamam bu bëgg borom weer wi muy sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kon gàmmu gi mi ngi ñëw gis nga Sëriñ Tuubaa sax mi ngi waxaat ba tey ni yaa xayra zahrin jaabi xayri mursalin as abtaqat an maradi wa kasali yaa dégg mu ni yaa xayra zahrin yow weer wi gën a tedd ci weer yi mooy wan weer weeru mawlidu nabil moustapha sallallahu alayhi wa sallam yow de yaa ma indil yiw wi gën ci man jaabi xayri mursalin yow de yaa ma indil yiw wi gën a tedd yaa ma gën a indil ki gën a tedd ci man yow yaa ma indil ki ma gën a bëgg ci àdduna kooku mooy kan mooy ki nga xamante ni mooy yilif mbooleem mbindeef yi kooku la sunu borom xool ni ko wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil xaalamin wa ma arsalnaaka ila kaafatan li naas basiran wa nasiran walakin aksara naasi laa yaalamuuna kooku mooy sayduna muhammad kooka mooy doomi Amina ja kooka mooy doomi Abdallah ja kooka la yàlla wàcce ci moom alxuraan kooka la yàlla jox mooy afdal basar kooka la yàlla def muy xaatimul anbiya kooka mooy imaamul mursalina kooka mooy njiital njiit yi moo tax Sëriñ Tuubaa ni ko samsu sumuusi raasu ruusi xayrul anisi li law li yaayi sifa suduri li yaa uduri badrun buduri baadi diyaayi xaysun afaada man istafaada laysun abada inda duaayi kooka la Sëriñ Tuubaa di xool ba mu neex ko mu naa ko antal waaye nag dëgëran fii ka sonaa yi kooka mooy sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kooka la ñuy waajal bisam muy guddi gi nga xamante keroog bi mu feeñee jamono Kisra lalam ba dafa mabbu xam naa temps bi moo fi dul xaj ba ñu nettali histoire Kisra na mu nekke woon foofa ak la nga xamante ne amoon na bis bi nga xamante ni boo demee ci bërzën maam Moussa Ka ma ngi ko cay wax waaye daal lu mu ci mën di doon guddi gi guddi la goo xamante ni comme mu raw ci at mi xamatoo kañ lay dikkati muy guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp di ko màggal nag Tuubaa di ko màggal Ceneba di ko màggal ci Tiwaawan di ko màggal Njaasaan di ko màggal Laayeen di ko màggal Ibaadu Rahmaan di ko màggal mbooleem kuy wax asadu an laa ilaaha illallaah rek di nga màggal guddi googu nga xam ne mooy guddi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci guddi googu it Sëriñ Tuubaa daana wax naan abaa rabiixu siwal idbaari bi niami min ba'di iqbaalihi bil aradi wa niami abaa rabiixu siwa tawdi'i murtaxilan bi maa lahu min busharatin wa min karami yaa dégg Serigne Touba ñu naan ay waay weer wu tedd wii nga xamni yow ya wer yuma indi li xiwel ya wer yi nga xamanteni ya yaa ma wommatal lu kenn musta wommatal ndax ya ma indi sayyiduna Muhammad wer wowo dal moy weru mbekki moy weru tedd nga Serigne Touba neena wer wi bi maa min busharatin wa min karamin wer wi bari na mbekki bari nay tedd nga waye man cheikhul khadim dal xamna ni wer wi amna mbekki amna tedd nga ndax ki gëna tedd ci mbolé minde fi كبير ويلا فين جمانو واي كين دي مبولي مخيولي كبير ويلا فين جمانو موي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ميغا وخني ابا ربيح ربيح المصطفى وذري زوار الرواح وخير السير لم يرمي قال سيرن توبا نيمي تيرو ويرو غامو ديكو تيرو ويرو كور ديكو تيرو مبولم وير ييغا خامتيني ميروم الاسلام فين نياتا امول كين تي نيت يالا يي كوي تيرو لولو واي نا وير وي كوكو فونكون لا نخ بو موسى واخ ماغال جي لامو جي تك mooy gàmm gi ba gis ngeen mboolem xilaafaam ku fi toog xilaaf ak Touba rek boo waxee màggal la ciy teg mooy gàmm ndax fonk goo xamante ni fonkoon na ko gàmm daan ko defee njaareem moom Seexul Xaddim yonente bi nag sëñ Pape li may wax ni kenn bañu ko ku ko bañ dof nga waaye yonente bi kenn bañu ko képp kuy wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu yonente bi bëgg nga ko ndax waxoon na ko dañu kenn ci yéen munta am lenn ci ngëm yàlla ludul man Seyduna Muhammad dama koo gënal boppam gënal ko dëkkam gënal ko dereetam gënal ko léppam waaye loola it ko ko ci wane muy Serigne Touba ndax moo ni dammi wa ahli wa awlaadun fidaun lahu abdan xadiman muskaana li sanadi muskaana li sanada xam ngeen ni Serigne Touba moom bi mu dikkee la mu wax lu leer la dammi wa ahli ba mu jeex tàkk comme ni ma ko waxee woon léegi yonente bi it mus naa wax ni min asaddi ummati lii xubba naasu yakunu baadi yawaddu ahaduhum law raani bi ahlihi wa maalihi fekk dañuy wax ni ki gën a bëgg yonent bi saxaaba yi am ci ku jóg ni ko ñun mu ni déedéet ñi gëm dëgg bëgg ma sama ginnaaw la ñuy ñëw dañ may gëm te duñ ma gis dañ may gëm duñ ma gis kon mooy ñun waaye nag am na ca kenn koo xamante ni boko dajale won aduna li ci bir aduna diko ko jox ci wuru sa khalis mom mu gis jëmum sama jëm ji mom moko gënal kenn it la gis mu dik ni yaminu rabbiya al mujtaba afdalu min mil ibladi zahaba ak neexon ñu dajaleel ma li li nekk alal ci aduna ci biti ci bir kër gi duy ko néeg bi bam fess fees duy ko mbéde mi bam fess ni ma kaa ñu jox la li teg sa be tege ci Seydunaa Muhammad dama na leen man cheikhul khadim sama be tege ci yonente bi moma gënal dem na ba ag ci ni man dama lab dama lab ci géejug bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom cheikhul khadim dama ne bay wax ni bu yonent bi solo bay genn bu mako gisee lama koy ñëk laal moy damay jël sama blex tek ko ci suuf mu jël ndëg tankam tek ko ci sama blex ndax yax bañ ko jam wala dégg bañ ko jam wala lenn luy xuree bañ ko jam ngir sama bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko xam ngeen bi mi nekk ci tukki bi mom cheikhul khadim bu naan bind ay khasida ba ba ci turu muhammad ولا منطقة ولا بشير ولا حامد تور يو سيل يو ييغا خامني محمد صلى الله عليه وسلم لا ديم داي جيل داجو خونغو ديكو كو ماركي مغير ньо خاميكو بو بيندي بيندي بو نيول بايك سي تيل فوم ورا ديف مو لو خونغ ريك خامل لي تور محمد صلى الله عليه وسلم لين تي تورم يلا موكاي ديف با داجو مو يورون موي انكار بي جيخ موي بيندي دي استوغي دي بيندي دي استوغي با جي ياغ مو وولو مام سيخانتا راكام جي يونيكو غير مو انديل كو دا waye laata muy ñew muy xalaat ni mom dreetam dafa xongu mu jël saako si mu yoroon dagg ci loxoom muy naaj ci muy capp ca deret ja di bind turu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ni kooku kuy bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo egsee ca kooku di nga xam ni te boo xoolee bëgg gi mu bëggoon yonente bi gaa yi bëgg yonente bi dañ koy bëgg-bëgglu ndax koo ci dem otoo ngi këram koo ci dem am na kër gu rafet koo ci dem buy lekk la muy lekk day neex koo ci dem mi ngi takk montre bu cher koo ci dem mi ngi takk verre yu cher koo ci dem mi ngi takk portable bu cher te yonente bi loolu soxlawu wuko woon mom limu mu soxla woon mooy digganteem ak yàlla sunu borom subhanahu wa taala serigne touba mi ko roy don ko ba far di mom moom wul won yoy yeb yoy yeb mom Cheikhul Khadim soxlawu wuko won da roy yonente bi ba boko gisé sax xamni ki roy na yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci zahir ak ci batin kon mbok yi ludul jeex mom lo ci am ah day doy na xamna ni comme ñoo ngi fi te télé baa fi ah xam naa ni yeneen émission yi gën a kii sax dina ñëw ndax temps bi moo xam rek ñuy njëkkanteeg moom ñi ñoo ngi tuubal ñëpp ah, di jégglu ñëpp di wax ni yàlla nañu yàlla defal tawfiix yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla may loo xamante ni mbégte lay doon ci biir mbégte ci biti ci barkeb ma fatin al bishri seen mbokk Moustapha Ka moo doon ànd ak yéen ci jataay bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu